y avait beaucoup de sommités. ñu mhm. doon ñëw di participer à ces débats-là. c'est des rapports qui étaient faits et en terme de proposition da doon impulser la politique sécuritaire mhm. pour ñëw ci buuba. le 17. Mhm. police xam nga manque de civisme bi ne ci réew mi nag moom. dafa ci fépp. démb le lieutenant des sapeurs pompiers de Mbour. dafa ma woo ni ma ko non c'était pas semaine passée. ni ma commissaire am na numéro téléphone boo xam ne sonal nañu. moom bu wootee day day saaga ndey bu wootee day wax lu bon sapeur pompier nga xam ne ñoom dañuy sauver nit ñi xam police sax mën na laa jàpp mais sapeur pompier quand même du la jàpp. Hmm. lan nga war a mën a jotee ñoom ba di leen woo di leen saaga kooku est-ce que fi fi mu ñu ngi ci hmm. enquête boobu. mu ne 17 bi 17 hmm. gis éléments yi dañ koy décrocher raccrocher ko teg ko parce que saa yoo ne allo saaga yi commencé on n'a pas amuñu jotu nag. Hmm. di di di topp c'est pas une raison quand même. Hmm. que ñu ñu bañ a utiliser 17. li ngay wax nii pour pour ko on a essayé. dama lay dama lay jox benn exemple rek oui on a essayé. ñu ngi sonné occupé occupé. ñàkkul ba la sensibilisation aussi dans ce sens dañu woote saa mais commissaire commissaire xam naa commissaire bi. commissaire dafay dédouané nag mais très très xaw waaw tuuti xaw a xaw na jéngu bi door. waaw comme am naa sama benn ma na jéngu bi door. am naa sama benn dama am sama benn sëñ sëñ Fallou Mbacke. bu ñu werante ba d'accord ci benn affaire damay dindi dindi montre bi comme mënu ma koo kii ma gën montre bi teg moom mooy sëñ bi d'accord waaye commissaire wax dëgg yàlla ah ah dëggantaan parce que parce que réalité. Hmm. en réalité <laughs> en réalité. Hmm. du agent yi ñoo war a jël téléphone bi. Hmm. en réalité pour man du agent yi de police yi ñoo war a jël. téléphone bi ñu ut opératrice dañu a boo dañu boo wootee boo wootee euh, orange. Ah, pour information. dama du du du du du directeur commercial bi ngay jot. même fii même fii boo ma doon bëggee jot. ah du ber kii da nga jaar ci kii pour man loolu service bu ànd bokkul ak les les hommes de tenue la nécessaire en tout cas dañu war a former ay nit yoo xam ne. nga wuyu rek wuyu rek mooy wuyu kese. léegi nag dafa am dara lu am dafa am ci ay métiers yoo xam ne loolu nga war a gën a mën a nangu. Hmm. mooy que di nga gis façon nit bu nekk mais. service bi nga war a def. pour la population loolu moo ëpp doole. Hmm. mooy primer si doole pour man pour man woote 17 ah. cinquante personnes yuy jël téléphone ah dafa war a exister nga xam ne mooy dispatch ban quartier nga nekk jël information primaire yi mooy am fépp mais bu dee agent yi ñoom ñooy jël téléphone bi directement ci kii bi ça pose un problème peut-être c'est un problème de moyen mais en tout cas. pour man ce service là. il n'est pas obligatoirement truc un de. interne interne. il faut l'externaliser de de kii nga xam ne alors ah maa ngi ñëw teg téléphone bi taal sa oto dem rek la di problème bi loolu moom moom mën naa sa remonter. c'est que c'est pour tontu Bouba ci loolu rek. li muy wax nii c'est c'est vraiment l'idéal hmm. mais mais mais xam nga euh, sécurité aussi dafa sensible hmm. am na ñoo xam ne mënu leen ko confier euh, set bi dañ ko calibré boo demee dans la région de Dakar boo di 17 dakaar ngay jot boo demee Mbour boo wootee 17 Mbour ngay jot donc hmm. noonu la. Euh, te te mais commissaire nga dul nga baal ma mais nga dul jot dañuy wax. parce que non non non li ngay li ngay li ngay ngay jot. Pierre woote waatal. li ngay jot li ngay moo ëpp c'est que c'est que. Pierre woote waatal. c'est que xam nga li graw pour man mooy déjà le que. <laughs> merci que nit ñi <laughs> non sama mbokku jegem la bëgguma ko woon ba tey <laughs> mais le que nit ñi tàggatuñu leen. pour ñu am Pape Djibril baal ma Pape Djibril. toujours occupé. toujours occupé voilà loolu sax bettuñu loolu sax bettuñu waaw donc le fait que ñu am réflexe bi. le fait aussi ci sensibilisation bi à partir euh, ci fi xale yi gën a nekk fi fi nit ki gën a nekkee xale ñu ko ciy tàggat wut canaux yi nga xam moo gën a dëppoo ak jamono ñu jaarale ci loolu mu nekk une offensive boo xamante ni communicationnelle boo xamante ni de sensibilisation boo xamante ni police dina jël ci ay moyens pour def ko ah ak ministre de tutelle am xëy na pour que ñu évaluer loolu ban jeexital lay am ci population yi comme li wax léegi ne boo demee États-Unis par exemple réflexe bi mooy 911 xale yëpp moom lañ leen di njëkk a jàngal pour ñu kii c'est vrai que foofu aussi le besoin de sécurité est énorme moo tax foog ñu tàgg foog ñu kii leen ci lool mais ñun aussi je pense que ne côté boobu dañ ci am dañ ci am liggéey bu rëy rëy boo xamante ni war nañ ko ci def et moi je vois pas la police. Mmh. pourtant ci wàllu communication. pourtant Pape Djibi ñu ñu ngi communiquer ah police mi ngi communiquer police mi ngi sensibiliser également surtout par rapport ak. Euh, euh, naka honnêtement police pour wax la dëgg rek police ci réaction lay leen di gën a gis. mooy ñu mettre leen au box des accusés mmh. ñu daw jël benn émission pour réagir. wala ñu invité leen wala soit mu am benn cas boo xamante ni taxaw na et là j'interpelle j'interpelle directement ñoo xamante ni mooy le bureau des relations publiques de la police c'est-à-dire que pour man y a un énorme travail à faire dans ce sens non en fait euh, bi euh, moi je pense que pour le volet sécuritaire pur euh, gis nga bu police doon doon def prévention mm. kon dëkk bi tàkk on se déploie énormément pour la prévention Sénégal bu amee stabilité. Mhm. c'est parce quelque part. am na lu d'accord nañ ci de. mais justement c'est-à-dire cest à parce que man prévention ni ma ko mhm. de nos activités prévention. Mhm. Euh, maillage bi densification bi initiative la police parle peu parce que la police a énormément de choses à faire beneen bi mooy par rapport ak 17 bi. dafa am nag lu président Kéba Mbaye waxoon loo xam ne man dama citation la bu ma neex. bi muy wax ci wàllu prison yi. dane autant la cybernétique n'est pas entrée dans la thérapeutique d'un médecin de brousse et tant il serait vain autant il serait vain pour le détenu sénégalais de rêver des prisons dorées des pays nordiques c'est exactement la même chose. c'est-à-dire ci wolof. Euh, kon suñu prison yi li mel ni sa choque pas. non je ne dis pas ça. Ah. je je, je n'ai pas dit ça. j'ai juste rappelé une citation de Kéba Mbaye du président Kéba Mbaye bu mu teniroon lors de son discours des cours d'ouverture à l'occasion de l'ouverture des cours des cours des tribunaux de 1981. Mm-hmm. citation bu Maître Doudou Ndoye reprendre. dans une de, so, une de ses annotations, en 88, sur l'hypertrophie des pouvoirs du juge d'instruction. Mm-hmm. dama ko lire comme par hasard. Mm-hmm. mu ne lan mu koy lire ci wolof est na ko wax ci wolof. maanaam maanaam daal euh, bu ñu bu ñu nag euh, am ay envolée lyrique. Mm-hmm. su sunu réew euh, prison yi mu méngool ca jamono booba. politique carcérale bi ñu adopté moo moo tolloog seen sunu doole effort du ñakk effort mi ngi am. surtout ambition. état moo tax. Mhm. ambition moo tax ñu def un document d' action stratégique. Mhm. et un plan d' stratégique de la police à l'horizon boobu jeex na. Mhm. ñu ngi songaat beneen. il y a des esprits quand même puissants qui existent dans la police. c'est pas pour me c'est pas pour me vanter mais c'est la réalité. cest dire des gens qui sont ambitieux. xam ne nag changement mënu ñàkk. cest dire on est obligé de de passer à une mutation totale à tous les niveaux. mais dafa am ñetti secteur yoo xam ne. pour accueil bi boobu di wax léegi. ay effort yu bare bare war na fa. force de défense et de sécurité yi ci lañ bokk. hôpital ci la bokk. tribunal ci la bokk. parce que ñetti secteur la yoo xam ne ña fay dem ñemewuñ leen. exactement même ña fay liggéey dañoo amul pexe. Euh, à telle enseigne que ña fay ñëw ils viennent avec cinquante pour cent de leur capacité. il suffit nga am noo leen richigner wala noo wax ak ñoom rek mën nañ fa sax wax lu leen fa téye. hôpital quatre personnes ñoo fay dem le personnel hospitalier le malade celui qui l'accompagne et son visiteur quatre personnes yi ñoo dem hôpital amul kenn ku fa bëgg a yenn da ngay ñëw aux urgences tu rencontres un médecin urgentiste boo xam ne moo lay rey léegi wala quelques membres du personnel hospitalier moo lay rey parce que day tenir discours boo xam ne kii lu ngeen xam ngeen xaar ba état bi egsi fi quelqu'un qui était venu avec 50% de ses capacités boo ko tenir le discours boobu il est mort parce qu'il mm-hmm. perd espoir mm-hmm. mais il voit un psychologue un bon médecin ki lui di yow noo sant mu ne ko faal mu ne ko fekk jaañañ la sant mu ne ko yow way yow lii du dara kaay ma faj la demeen toog ne papa demeen toog ne kaay kaay kaay joxaat nga ko espoir même si toi médecin tu sais que kii il a un cancer en phase métastase totale donc yooyu yooyu noonu mm. nit ñu xam nañ ko te ñu ngi yi muy wax ñu yooyu nag levier yooyu beaucoup de choses yoo xam mën nañ xam nañu ne police moo la gën a xam ne mm. l'accueil faisait partie de notre talon d'Achille les gens sont en train de changer mm. d'ailleurs boo dem commissariat boo dem da ngay fekk jigéen mu toog ci poste police bi parce que les femmes sont souvent accueillantes góor ñi d'ailleurs jigéen ñi lañu gën a ñemee waxal que góor ñi seen bopp. donc au niveau des secrets.